sant bu baax a baax ñu war a euh, waxtaanee ndaje bi ngeen di waajal pour la libération euh, de ñi ngeen tuddee otage politique waaye laata loolu daam bëggoon naa euh, recueillir sa avis ci yenn question gis nañu ci démb président Sall ab ndaje bu guddu tàmbali 18 heures ba 0 di déglu ñi nga xam ne ñooy ñi ŋànk réew mi ci domaine yu bëree bëri ak ñu jot seen xalaat ñu waxtaan ak moom pour xool ay solutions yu indi ci dundu gu ceer gi ñu bëri doon nañu yaakaar gis fa ku gisuñu la dégguñu la dañ la ci convié wul wala rencontre bi la intéressé wul. waaw xëy na ñam fa invité mën nañoo wax ci sunu tur parce que xooluma liste bi yëpp ña fa nekk mais président Macky Sall moom dafa baaxoo ne ñi nga xam ne dañ koy ŋàññi dafa jàpp ne wur leen a woo te man dama jàpp ne booy jiite réew nga xam ne ñëpp yaay seen président yenn saa yi su dee question yoo xam ne dafa laal réew mi yëpp doo jël rek ñi nga xam ne dañ lay wax li la neex. Hmm. dañ lay permettre nga déglu ñeneen ñi nga xam ne bu ñu ñëwee dañuy indi seen gis yu wuute ak yow ñi nga àndal. Macky Sall nag malheureusement euh, moom du doxale noonu ci àddunaam boo xoolee ñun euh, problème bi ñu gën a am mooy Macky Sall dafa neutraliser lépp ñëpp ñi nga xam ne dañ ko war a apporter la contradiction te loolu boo ko defee euh, in fine amalu la njariñ parce que day tax dañ lay nëbb les réalités mhm. aujourd'hui par exemple boo xoolee suñu association consumériste yi parce que problème bi mu doon adressé noonu dafa waroon nekk benn revendication majeure peuple bi portée par les associations consuméristes mhm. soo xoolee ñoom amatuñ doole boo xoolee ki ci ëpp doole je veux pas stigmatiser kenn déggatu ko ci yu bëri alors que association consumériste yu am doole day dimbali président de la république parce que dañuy dut baaraam ci li nga xam moo ëpp solo ci réew mi pour que nga mun cee indi ay saafara bala ngaa dem élection. Mhm. mais soo leen reyee ba ñu dee. askan wi di nekk di ñaxtu mais de façon désorganisée day tax mere boobu ñu la mere soo demee élection da lay yàq. Ah, daam xëy na jotoo invitation mais amoon na ñoo xam ne ils étaient pas avec le na ñoo xam ne sax seen ay kàddu xawoon na euh, tàng tuuti ba ñu xam ne ñii vraiment ils sont venus dire leur vérité bu fekkee mën naa ko waxee noonu au président de la république. effectivement mais man jàpp naa ni euh, ña ca ëpp ñu mel noonu la ñu waroon am profil yooyu. Hmm. néew ma kenn nekku fa woon koo xam ne amul un discours boo xam ne wuute na ak moom li muy gën a xaar. Hmm. mais man jàpp naa ni euh, comme dafa jàpp ni euh, li nit ñi dund metti na lool ndax te njëg yi jéggi na day woon. Hmm. ci marché bi. nattu yaa waroon a ëpp loolu rek laa wax ah. mais teewul am na ñu mu fa yóbbu quand même ñoo xam ne wax nañ fa loo xam ne amal na njëriñ askan wi parce que euh, li xew nii baaxul ci président Macky Sall euh, c'est vrai que nag man je reconnais qu'il y a une boo xam si vraiment dafa metti pour tous les pays loolu mooy dëgg mm-hmm. parce que man euh, rus naa de taxaw di wax loo xam ne gëwuma ko aussi sa à taxaw wax ne li li ni prix yi mettee actuellement ci Sénégal rek la am loolu waxu naa fekk la man du ma ko wax adduna bi yëpp dafa am benn flambée boo fa am mais réew bu nekk yaa ngi wuti pexe ñun bu ñu fa nekkoon jàpp nañ am nañu ay position yoo xam bu ñu ko woon na ko dimbale parce que man jàpp naa ni train de vie de l'état bi ñu réduir ko baaxoon na ci moom parce que mesures mu jël euh, naam man jàpp naa ne am na ci ñett ba ñeent yoo xam ne gis naa ni baax na mais am na ay mesures yu ko mënoon gën a accompagner parce que y' a eu beaucoup de littérature dans les quinze euh, décisions. Mhm. yoo xam ne yu ci ëpp amul njariñ parce que ay waxtaan ak diw ñu bind ko comme mesure waxtaan ak patronat bi bind ko am comme mesure. da nga jàpp ne on avait plus besoin man jàpp naa ne président Macky Sall ci bi muy teg nguuram gii mu nekk ci contexte boo xam Sénégalais yi presque dundatuñ dañuy gobar jaas yi. Mhm. dañuy togg añ te bu ci reer presque amul benn kër presque à ñu am doole ñuy yoon ci bis bi contexte mu defoon mu lancé woon un message très fort aux Sénégalais maanaam ñëw ni mais dama amoon gouvernement de 39 ou 40 ministres mais dama décidé ne damay dem en gouvernement de ministres damay réduire de façon drastique les dépenses de l'État loolu doon parce que ministère yu bëri mën nañu ko boole. par rapport aux dépenses il des réductions dans le passé. ci ci non non de par le passé effectivement des agences euh, qui ont été fusionnées mais baax na mais dama jàpp ne malgré que mu def ko du tee askan wi ñaxtu wax ne train de vie de l' état mm-hmm. euh, li ñuy dund ñoom métti na ñoom askan wi man jàpp naa ne créer un ministère de l' économie et man pour man mun nañ si ci euh, fondamentaux yi mooy li amoon au Sénégal. Euh, wax ni mun nañoo am un grand ministère de l' économie et des finances bi nga xam si amoon nañ ko fa ay jamono. avec voilà donc mun nañ am également les trois ministères yi mu def ci éducation nationale mënoon nañ ko boole. def ko un grand ministère. mais est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour une seule personne aussi. non non y' a aucun problème parce que da ngay am de grandes directions mais de grands pays comme les États-Unis mhm. mais ñu ngi koy am te pourtant ça euh, ne fait ça de débat parce que état bi mi ngi fonctionner c'est-à-dire que boo créé boo émietté donc les postes ministériels loolu au contraire sax mooy indi ay conflits de compétence man li ma gëm mooy boo xoolee ni gouvernement bi demee nii mais dinañ laal seen biir malgré qu'il y a le décret d'application. Mhm. donc man man euh, qu'il y a le le décret partition des des services mais man li ma gëm mooy euh, waroon nañ gën a mën a euh, euh, compresser pour que ñu am un gouvernement ah, d'une vingtaine de ministères ensuite y a des y a des y a des institutions yoo xam ne sénégalais yi amalu leen njariñ ay HCCT fii ay vraiment CES fii conseil économique social environnemental fii ay comme au conseil dialogue mm-hmm. vraiment sénégalais yi dañ ni institution yooyu gisuñ ci seen bopp te nag moom du ma aw Ndiaye ñun dañu gëm ni lépp looy def askan wee tax nga koy def bu ñu demee ba dëkk bi metti ñuy jël ay budget wu neuf milliards ak dix milliards di ko dugal ci ay institutions yoo xam sénégalais gisuñu seen bopp man jàpp naa ne président Macky Sall bu déglu woon la vote des sénégalais parce que bi élection yi jàllee daf ne déglu na sénégalais yi bi bi locale man jàpp naa ne dégluwu leen législative yi ñëwaat sénégalais yi voté nu gën a tar mais mesure yi nga may wax euh, souvent ñu koy jël mooy ñuy soog a toog xam ne des na leen temps bu bëri pour ñu indi ay changement mais tey jii euh, bu bëree ba bëri il lui reste seize mois dix-sept de euh, def yu mel noonu ça ça ça aurait signifié quoi ça aurait signifié que man xam naa ni onze ans yi ma jiite réew mi yëpp juum naa. parce que tamit aveu d'échec lay doon. mais est-ce que aussi danañ xaar li mu def nii tamit aveu d'échec la rek parce que tamit. nga yore réew mi fukki at ak benn réew mi nekk ci jafe-jafe prix yi di yokk ni ñi sonn. nga ni yow amoo solution ba on onzième année ba jot. Mhm. nga taxaw naan da ngay am solution alors que benn at moo la dese mais man jàpp naa ne loolu tamit aveu d'échec la parce que wone na ni. boo jëlee par exemple lu ci bëri bu nee mun na ko regle en onze mois ou douze mois ou treize mois quand loolu ñàkk a respecté sénégalais yi parce que nit boo ko falee mu def fukki at ak benn mhm. la taxoon nga fal ko ak engagement yam jëloon dara presque defu ko ci nekk ba dese benn at taxaw ni man la ma mënul woon ci fukki at yeeg benn. mais fa laa jëwoon léegi mën naa ko man jàpp naa concertation yi est-ce que dina jur njariñ parce que aussi des rencontres de ce genre on en a eu dans le passé dem ba def benn ay conclusions yëpp jox ko mu jur fenn loolu sax bi mu soog a falu woon ci lañ ko doon am yaakaar que tey jii nii le moment voilà est-ce que dina dina dina aboutir à chose mhm. mais lan la jur président Macky Sall moo fi taxaw ci bi mu jëlee ah à l'horizon 2017 day atteindre suffisance en riz mais boobu bi mu ko waxee ñëpp a tàccoo même fekkente ne amoon nañu sceptique ci loolu. Mhm. mais dafa ñëpp dañ ne loolu baax na parce que ñun Sénégal ceeb bi li ñuy dundee ceeb dafa métti ci sunu euh, ci sunu ci ci sunu dundin comme ceeb presque moom mooy denrée bi ëpp doole ci sunu dundin nga am ci autosuffisance ba dootuñu jéggaani ceeb bitim réew mi loolu bi ñu ko waxee ñëpp ci kontaan mu tegoon fi un ministre boo xam ñëpp dañ am na xarañte muy euh, euh, le le le le le le ministre Abdoulaye Seck. Mhm. mais ñu dawal ba 2017 ñu gis ne Macky Sall la mu diggoon dara amu ci. ñu ñëw 2017 jàll ñoom ñoom waa APR mais ñoom APR non jegewuñ ko aujourd'hui ba léegi ñu ngi importé toog nañ fi ba yàggul ceeb bi yokk ñu ne bateau bi andi ceeb moo ñëwul gis nga euh, président Macky Sall li mu diggee woon ak sénégalais yi en 2012 ba heure bi à l'heure du bilan France daal di xëddeen yi ci ëpp solo defu ko parce que man moo tax bu ñu taxawee ñun sénégalais yi ñu gëm ni président Macky Sall fukki at ak benn la fi def lam digge woon yi ëpp ci lim digge woon defu ko mu dem ba desef benn at ñun bu ñu gëmee ni benn atam boobu mën na koo régler wax dëgg yàlla yéen yéen foog ne benn at moo ko desee parce que tey jii ni comme ni nga ko waxee ni à 16 mois de la présidentielle quelqu'un qui prend des mesures comme ça kooku xoolul rek dans dans le court court terme waaw man de loolu laa gëm foofu mais ñun askan wi duñ ko ci bàyyi parce que réew ko dama gëm ne président Macky Sall réew mi doon na ko ci ay maamam doon ko ci ay waajuram daa ñëwoon di xëccoo ak nguru président Ablaye Wade ñu jaay ko doole. Mm-hmm. askan wi sotle ko fal ko en 2012. ne ko tegalaat tegaatal réew mi ci yoon parce que yow injustice moo tax ñu fal la parce que sénégalais dañu mere woon Wade ci jaay doole bi moom mu ñëw furli Wade.

daan dafa dafa wax ne Macky Sall moom tant que nga bëgg mi ngi ci wetam moom Amadou Ba ça veut dire profil bi mu teg c' est ministre premier ministre boo xam si du ko contesté mukk tant que Macky Sall ngi bëgg. Amadou Ba niru na la nit Amadou Ba Amadou Ba dama ne la. du xam nga Amadou Ba ban schéma la ñuy andil schéma. Euh, euh, Poutine Medvedev à ci loolu lañ nekk nekkuñ ci leneen schéma à la Poutine mooy aujourd'hui pare nañ bu ñu demee ba Macky la xam ne réew mi duñ d'accord ci troisième candidature am. samp ko parce que moom xam na ni la conscience est claire ñoo ko waxal seen bopp du samay wax. Mm-hmm. encore une fois ñoom sax bi ñu koy wax dañ ni lii du droit. ku am niveau français bu élémentaire mën nga ko comprendre parce que constitution bi moo ne ci article vingt-sept bi. nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs kenn mënta am lu ëpp ñaari ay yu tegaloo kon nag wax ji ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko tëjal seen bopp même kii teel ko président groupe parlementaire euh, dégg naa ko bërki démb mu ne moom du ci wax alors que nit ñi koy vaar waxoon na ci yàggul mhm. kon fii bërki démb la dañuy wax ne yëpp dara yàggu ci parce que 2010 la euh, léegi dafa yàggul d'accord euh, Dame vu comment vous vous opposez à Macky Sall maanaam vous êtes virulent mayu leen ko dara am na ñu naan sax une opposition radicale dangereux de laisser ce pays entre les mains de de radicaux waaw <laughs> de radicaux wala d'amateur wala ñoo xam ne xamuñu trop affaire yi en fait de serait risqué pour le Sénégal loolu ñu bëgg rek jamono ji yéen aussi euh, dafa mel ne vous faites tout pour que ni Sénégalais yi gëm-gëm loolu ci yéen mais Mamadou Awa man dénk samam réew koo xam ne ab amateur la ñuy tudde amateur mooy ku mës sa gérer état oui moom ma gënal man dénk koo xam si yàgg naa gérer état waaye ab sàcc la koo xam ne yow bi nga fi nekkee ba léegi nekk loo fi Sénégalais yi Macky Sall bi mu càcc googu ngeen di wax est-ce que da ngeen ko teg fenn mais loolu moo am. mais dañuy dañuy randal alalu askanu ñaata rapport li may wax ni kay sénégalais yaa ngi seetaan ñaata rapport ñoo jógee ci organes yi yore saytu li alalu réew mi di di doxe aventurier c'est ce que je cherchais loolu laa doon seet dama la bëgg mhm. expliquer la man dama la woon ni la man man damay préférer ki nga xam ne dama jàpp ne amul expérience ci mhm. état parce que loolu ñu tuddee aventure. mooy dugg ci koo xam ne wu xamoo ndax man na ko munu mais man damaa jàpp ne boroom koo xam ne wóor na ma ne man kii bu ñëwee du sàcc sama xaalis moo ma gënal ab sàcc boo xam daa am expérience xam nga liy dëgg mooy ñoom li ñuy wax taxawul parce que euh, amul benn école boo xam si ñoom ñii di gérer réew mi dinañ faa jàngale nu ñuy gérer état te. administration mais doguma la kenn ci yéen Barthélémy Diaz qu'est-ce qu'il a dit la dernière fois pour dire que ne candidature euh, Ahmed Aïdara doon bi gën amul jaar-jaar politique maanaam jaarul école du parti amul benn ancrage au niveau national loolu c'est c'est la coalition Yewwi Askan Wi seen biir ñooy waxante loolu kon nag waxuma koo xam ne il une vision boo xam ne ci biti la nekk di ko di ko jëmale ci ñoom. non xam nga kooku waxu Bart la bu nekkoon candidat di xëccoog moromam man dama koy. waxu politique rek a waxuma la. koo xam ne leen gis-gis. loolu loolu waxu kii la mais quand même euh, quoi qu'on dise euh, dafa am solo. Mm-hmm. ñun ñi niy teg duñu ay cuune ñoom ñee ñoo koy wax rek mais tey jii bu ñu jëlee ku ci mel ne Ousmane Sonko nga xam ne moom mooy leader charismatique wu li ñuy tuddee l' opposition radicale nga xam ne moom lañ njort ni bu élection yi jaaree yoon en 2024 moom moo nar a wuutu président Macky Sall mais du cuune mhm. dafa wane lu leer bind lu leer am parcours yàgg DGID dafa au moins 15 ans mos a am benn dërëmu état bu mu sàcc

mënuñu caa tudd kenn ko daa violé pourquoi parce que la pièce maîtresse ci cas de viol tey gis ngeen sax ñoom seen cas bi ñuy am fan yi bugguma ci dugg man sa mhm. Mhm. mais dañ ne effectivement la thèse du viol est écartée de maa ngi dégg presse bi di nga presse ñu ngi dugal seen bopp parce que presse yoom ñoo ni ñoom ñëpp fan yëpp maa ngi ñu koy titré sax ne la thèse du viol est écartée. parce que loolu kaawu kan la. waaw non non non may ma rek. non loolu ñu ne laa ba nga mooy tudd fan yi ci saagakat boobu ñu ci ñuy tudd <laughs> ñu ne léegi laa ñoom nee nañ la thèse vial viol pour saagakat boobu mhm. c'est écarté parce que le rapport médical bu médecin bi moo wax ni euh, euh, euh, fii bi kenn violé wu ko waaw léegi mais logique pour logique ñoom it lu tax presse bi bi rapport médical ci Sweet Beauté waxee ni mu leer naan un docteur assermenté qui s'appelle Idrissa Pouye mhm. euh, euh, Idrissa euh, Alfousseni Gaye à l'hôp à l'hôpital Idrissa Pouye mooy Grand Yoff moo bind ci lu leer mu ne xale bii ñu ma indil muy Adji Sarr mu ne kenn yëgul ci moom loolu kay wax dëgg yàlla kon ñoom presse bi à l'époque lu tax waxuñu woon ne ah wax dëgg yàlla daal rapport médical bi nee na viol amul kon nañ féetale. d'accord parenthèse la woon ñu wéy ci sunu waxtaan euh, ñu ngi woon ci euh, concertation yi ak politique bi mais aussi da ngeen di euh, sóobu ci benn combat boo xam ne xam naa ne ñor na la lool nee ngeen mooy libération des otages politiques otages politiques xam ci réew mi de qui parlons-nous. effectivement otage politique du fi jeex Macky Sall ñoom jàpp ci prison yi. pour raison raisons ñoom ñëpp ot ay otage politique lañ pourquoi ay otage lañ parce que soo jëlee euh, il faut pour nga comprendre ñu li ñuy wax il faut nga gis ne Macky Sall moom opposition bi bi mu tuddee opposition radicale ñooñu dafa jàpp ne danoo war ñoom ñëpp dugg ci kaso bi Macky Sall nag mën na def loolu parce que moom mos sa ñam kaso garde à vue sax koo ñam mm-hmm. bay ñam kaso looloo tax moom daa jàpp ne koy jàppanteeg moom meilleure sanction bi mu la mën a teg mooy du fexe ba. mais c'est pas Macky Sall qui dit justice jàpp leen diw ah. moo koy wax. loolu mënu ko mënu ko gérer sax. am na ñu koy wax li ñuy wax demewul noonu Macky Sall mhm. Sénégal maanaam sunu yoon ni mu tëddee. procureur la République mooy jàppaate c'est le maître des poursuites moom procureur de la République biy jàppaate. ki ko seef mi ngi tudd le ministre de la justice garde so sceaux garde des boobu ki ko seef mooy Macky Sall kon ku ci nekk mën nga jox ay instruction sa moroom looloo tax sax ñoom waa u Union des magistrats du Sénégal wax na ñoom dañoo bëgg mbuumu cordon ombilical bi nekk seen diggante ak président de la république ak le mm. garde des sceaux ñu dagg ko ba ñu demal seen bopp comme ni mu amee dans beaucoup de pays sans ñu am une république d'accord mais est-ce que daam dañuy fekk jàpp d'accord bi jàppaate lay wax ministre de la justice nee ko mu jàpp mais est-ce que dañuy fekk nit kuy doxi soxlaam ñu jàpp ko wala nit ku tëdd nelaw ñu jàpp ko mais ku ñu jàpp am na lu tax ma jox la benn exemple nga xam ñoom lañ tuddee seen force spéciale te ñu tuddee ko farce spéciale mhm. mooy ñooñu nga xam dañ leen jàpp ñu ci gën a siiw ñu mel ni Pape Mamadou Seck Mamadou Seck ak Pape Ousmane Seck ak euh, euh, François Mancabou mi nga xam ne a àdduna. Mhm. ñoom ñooñu jàpp ñëpp ci tappale la leen jàppe yow yaa wax tappale la est-ce que vous les informations man xam naa ci kenn koo xam ne d'après li ñuy wax dafa wax téléphone kenn raccroché ñoo ne ko ki nga doon waxal lañ soxla moo leen du ma leen ko jox ñu jàpp ko yóbbu jàpp ne y'a complicité wala am na lu mu bañ a wax donc je veux dire. am na loo xam ne enquête moo koy déterminer. Mamadou Awa Ndiaye gis nga li ma la mën a xamal mooy fii Sénégal ay terroristes amuñu fi Macky Sall bu doon terroriste la ñuy jiñ kon du ñëw au pouvoir. ñim àndal taxaw nañ fii sax jiñ leen fi coup d'état coup coup d'état rampant mm-hmm. te boobu Abdoulaye Wade bu ko neexoon mu ne ah bon comme dañ may waaj a fii kenn jéem fee coup d'état coup bu doon tey ji Macky Sall ku defoon loolu bañ tudd la ci coup d'état yow day lay tëj ba noppi jël caabi ji sànni ci géej. mais ñi tax ngeen di xeex dama la bëggoon ne la. oui jàpp noonu. waaw ñoom ñëpp kenn du ci terroriste ñoom ñëpp xam naa leen kenn bu dee Ousmane Diagne kooku mafia kàcc kàcc la doon gérer moom ak ay ñoom Papito Kara ñoom defuñu dara ñu ñëw jaay leen. mooy détournement une ñu fi doon dégg. ay ay une loolu xam nga ne jaaduwul et cetera loolu xam nga ne jaaduwul même bu jaaduwul mais mënoo ko jiiñ terroriste alors qu'il y a pas de plainte même même même même même fekkee dañoo def na ay inu amul benn entreprise de presse boo xam si def na ci benn plainte te pourtant ci même condition yi 15 janvier euh, deux mille juin 2022 bii mhm. dans les mêmes conditions une enquête am na koo xam si euh, détourné na ko fi ma da en faveur du régime te kenn jàpp ko nguur gii daal kumba am ndey kumba amul ndey la ku ku ànd ak Macky Sall la neex def ku ànd ak moom mu jàpp la tëj ci kaso bi gis nga ñooñu mu tëj ci kaso bi. ñu bëri dama leen cee xam Ousmane Diagne dama ko xam sama élève la woon lycée Limamoulaye du mhm. terroriste. nit ku yaru la Pape euh, Ousmane. mais yow wax ne terrorisme la ñu topp mais est loolu la ñu leen toppee réellement mais moom ma kenn wax ko dara dañ ko jàpp téye c'est-à-dire jàpp téye ci. mais aussi daam daam ci jaadu na nga taxaw naan euh, ku mel ne Ousmane dañ ko jàppee pour terrorisme est loolu réellement la tax ñu téye ko. maanaam booy wax loolu nit ñi dégg ko. dama ni nga amee kaddu. dañuy jàpp ne loolu moo am ñoom ñoo leen tuddee ay forces spéciales

loo xam ne dafa ne dafa gis ne reelu na mu partage ko loolu loolu rek lañ ko jàppee. des na ñeneen ku ci mel ne Karim Xurum Xax. mais léegi ca euh, laa jëm Cheikh Omar ca laa jëm xoolal boo jëlee ku mel ne Amidia. Amidia moom lu mu def luñ ko jiiñ mooy daa def ay ay ay yoo xam dañ ni c'est des transferts douteux alors que du ay montants yu élevés transfert douteux kooku c'est réglementé. bu fekkante ne ay 45000 ak ay 25000 nga transféré mënuñu ne sur cette base là. yow dañuy soupçon mais daam comme fit nga est ce que am nga information yëpp. dama la information yi leer lañu am parce que ñoom dañ doon préparer une manifestation pacifique ñoom ñëpp li ñu leen jàppe ay ay manifestation pacifique yu ñu doon waajal la ñu nekk ci ay parti yoo xam ne am nañ droit waajal mi ngi mel ni dama la jox exemple ñun suñu manifestation bi ñuy waajal mhm. euh, a participer yónnee 30 000 dañoo war a defar benn affiche. est euh, diw cotisé na ñu ne non cotisé na. par c'est ça tant c'est ça c'est pas grave. dama la ñoom loolu lañ def tant c'est des affiches c'est pas grave mais je veux dire bu dee xaalis la boo xam ne fa la jënd cocktail molotov wala par exemple loolu loolu c'est cocktail molotov boobu ñu ne terroriste nga kon. ab mais foo ko diriger woon foo ko diriger woon dama ne la. foo ko doon sànni pour grève dama ne la. ci télé bi loolu amul dégg nga xeex ay policiers yore chose ñoom li ñu leen di jéem a jiiñ mënta ne mënuñoo wax ne ñoom dañoo naroon dem Cap des Biches te ñoom jàppuñu leen wetu Cap des Biches kenn gis leen ñu teg leen loo xam si Cap des Biches la jëm gis nga dama la ñii xam nga liy dëgg mooy président euh, Macky Sall ñim jàpp sax intéressé wuñ ko xam nga koo intéressé. il vise Ousmane Sonko te daa ragal. lii lee lii mooy dëgg te bis. président Sall ak tous les pouvoirs Sall li nga wax yaa ngi koy dégg. Macky Sall dafa ragal. loolu mooy dëgg dafa ragal Ousmane Sonko Ousmane Sonko dong la tiit yii muy def yépp Ousmane Sonko ko intéressé mais ñu ngi koy xaar. bu fekkente ni ñetti dossiers yi muy dossier Ousmane Kabiline Diatta ki mu tudd Ousmane Diatta mu toll ci Kabiline pour gën a dëgëral mu ne léegi am na ñeneen sax ñu ci mën ta wax ñu rëcc ñan la procureur mi ko sax war naa am gàcce ci waxam ji ñu jóge ci boobu ñu ñëw ci dossier Sweet Beauté bi ñu doon wax sànq mu wóor leen ay kàcc neen la parce la pièce maîtresse dit qu'il n'y a de conjonction sexuelle foofu kenn mënu fa am bëgg naa xam leen beneen bi ay tappale ba dem fekk leen ay plage jàpp leen ñii ñu jàpp leen seen biiri kër bu mujj bi nag moom mooy ñoom professeur Cheikh Omar Diagne ak euh, Abdou Karim Gueye xorom xaar nga xam seen ne ñoom li ñu def mooy relayer wala réitérer des propos de Imam Ndao ci dese Imam Ndao wax ne Imam Ndao nee woon na bi muy nekk en prison dañ ko doon torturer moom Imam Ndao moo ko waxal boppam partagé naa une émission ci kooru daaw gi ak Imam Ndao ci benn télévision fii Walfadjri mu man dañ ma doon torturer ci prison bi sama sama sama sama bi ma génnee prison bi la sama yaram sutante ay mbokkam dëggal ko. mais loolu la ñoo wax nee nañu aussi nee nañu aussi lu ko dal ci prison bi la ko dalee. maanaam état du ci du ci du ci innocent. loolu loolu xam nga ne ñu mais dama la ñoom dañoo répété des propos de Imam Ndao lu tax ko Imam Ndao waxee woowuñu ko Imam Ndao bi mu waxee loolu ci biir émission man dama woon bu ñu xëyee rek day am enquête sur la question kenn du woowul Imam Ndao ba ni mu génne àdduna waaw Abdou Karim Gueye wax loolu moom ak Cheikh Omar Diagne ñu bëgg leen a diaboliser naan est-ce de recadrer ñi ngeen di àndal bu ñu waxee lu tegginiwul wala da ngeen di ànd ci liñ liñ liñ bi may joxe mooy le cas Ousmane Sonko avant-hier ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ñu ngi doon xaar mu condamné ko mu ñëw il est il est il est il est pour à 100 pour cent maanaam yéen aussi est ce que tamit leen war ak seen ay militants yéen yéen war allez a ma mooy loolu moo jaaduwul non non waa loolu ay kilifa ngeen mais loolu sa xalaat la ñun ay kilifa lañ mais xam nga ñun kenn duñu lu mu war a xam mooy la woon woon ni na assemblée nationale amatu fa majorité ba fay jaay doole moom majorité kay amu fa majorité parce que majorité écrasante l'enjeu c'était le président de l'assemblée non non waaw mais il y avait moo tax mu jël lu lu mat quatre-vingt-deux ou quatre-vingt-trois personnes ku nekk mu wut loola procuration alors que la loi day tere loolu procuration ki koy joxe mooy ki yaakaar ne day am ngànt wala mu am ngànt mais dara jotu la nga ñëw toog ci biir assemblée ba noppi am ku yore ci biir assemblée ab saagam yore ay procuration loolu Macky Sall moo ko mos def Macky moo dugal ci ah, ci hémicycle bi ci biir assemblée nationale ay gendarme yoo xam da leen a préparé que xamoon na ne moom provocation bi dina indi coow Macky moom moo jël ay ministre yoo xam waruñu siéger ñu war a démissionner mu daaneel gouvernement am avant l'Assemblée nationale mu ragal ko def parce que xam na ne su ko defee y a des y a des qui vont refuser de de de d'aller dans le sens bi mu bëgg a dem. Mhm. mu bàyyi ministres yooyu ñu dem di siéger à l'Assemblée nationale alors qu'au du principe la séparation des pouvoirs kenn mënta nekk ministre. ñu war laa saytu ba noppi nga dem toog assemblée di saytu gouvernement bi. léegi nag léegi nag ci gàttal. foofu man dama koo rafetlu. député opposition bi nañ taxawee. guddi micro beeg dama taabal yi da nga ko rafetlu xamal liy dëgg. te ngay jàngalekat. dama la Mamadou Awa Ndiaye nit ñi il faut ñu waxante dëgg. bu ñu defee leneen dañuy nuru ay naafeq xam nga liy dëgg mooy munoo bàyyi ki nga xam dañ koo tooñ mu taxaw di fipp ci liñ ko tooñ ñu may wax waxu micro bu ñu dindeek ak ko urne bu ñu yenoo alors que ka tooñ mooy ka ñëw bëgg a jalgati l'article 54 bu bu bu assemblée euh, règlement intérieur assemblée nationale wax ni. ku nekk ministre mënoo siéger à l' assemblée mu ñëw siéger loo député ya taxaw ni opposition bi ne ñii mënuñoo voté. mais li wax nii Birame Souleye il était dans rien à faire là-bas dans ce dama ne waxuma la rien à faire dama ne ñoom ñëpp dañ leen waroon a installé d' mais bu ñëwee leen installé foofu la waroon a lire le règlement intérieur muy Birame Souleye yoo muy am muy Abdoulaye Daouda Diallo comme ca concerné ñun baax waxtaan médiation moo doon indi indi solution. mais Macky Sall du waxtaan Macky sàll day jaay doole assemblée ba su waxoon ne kaay leen dem leen ngeen waxtaan ñoom ay ay député ñëw toog waxtaan ak député opposition benn coow du am mais dafaa ñëw di jaay doole. léegi nag rupture rupture ngeen di jaay rupture ngeen di jaay wax ne gars ak sénégalais yu bëri ñu dugal leen ci piège bi naan leen noo dañoo dem di buddi ay micro dama ne Macky Sall mi la règlement intérieur moom ak ñi àndal di voté loo ay ministres yu wër ta voté yu waroon a démissionné démissionné wuñ ba noppi di jaay doole ñooñu loolu moo gën a garaaw ay micro. bu ñu leen dégloo bu ñu leen dégloo loolu ñoom ñu def tàmm nañ ko c'est des habitués mais yéen da nga ñu jaay discours bu bees rupture ñëw suivre leen. léegi nag loolu lañ leen dul suivre xamal tax. parce que bu ñu seetaanee ba ñu installé d'ailleurs man dama gëm ne le président de l'Assemblée nationale bii ñu fale il illégal parce que jaarul ci yoon lañ ko fale boo te gis nga boo boo taxawee seetaan ñu def lu leen neex. mais yéen ñi ñëw ak ñaari candidat lu ngeen ci mën loolu beneen débat la loolu débat comme neex nekk candidat loolu de l'illégalité de de de la procédure mais dama la bëggoon ne la nga ñëw am sept candidats loolu du problème loolu seen problème interne la ñoom waa Yewwi mooy à l'Assemblée nationale ce qui s'est passé c'est inédit. Merci. parce que président Macky moo am élection bu dem sénégalais yi voté jox une bonne place à l'opposition mu ne place boobu sénégalais yi jox opposition bi duñ ko fi exercer à l'Assemblée nationale kooku moo jalgati. kon nag mënuñoo bàyyi ki tooñ. ba noppi di wax ki fay loolu Sénégal. ñu ngi lay sant bu baax a baax c'est toujours un plaisir Dame Mbodj. merci beaucoup. <laughs> jërëjëf Dame Mbodj moo nekkoon sunu gan coordonnateur de la coalition. rencontre vendredi bi barki euh, ginnaaw suba. que nous avons prévu pour yi ma fi dénoncé yépp ñu nuy jàpp jaay leen doole dañoo bëgg àjjuma incha allah bu 15 heures jotee donc après na euh, euh, euh, julli àjjuma bi sénégalais yépp dajaloo à la place de l'Obélisque ñu marche jëm rond point BCEAO comme léegi dafa am ay chantier mun ñu yegg RTS ñu taxaw dénoncé li Macky Sall di jaay doole sénégalais yi kon képp koo xam ni yaa ngi ci réew mi te li Macky Sall di jaay doole neexu la na nga ñëw ci rassemblement bi nga xam moom la ñuy organiser incha allah vendredi bu 15 heures mucc ay jërëjëf ba woon Macky réew mi moomu ko. merci beaucoup di ko sant bu baax a baax Dame Mbodj moo nekkoon sunu gan yéen tamit jaa ngeen jëf di daje suba ak jàmm ak beneen invité merci beaucoup.